alhamdulillahi ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen baalu àq di baal àq ñépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu boroom mu yàggal ko fi te wéral ko di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew laata loolu ñu fàttali bokk yi nga xam ne ñoo teew ak ñi ñuy seetaan ci lan moo waral jataay bii nga xam ne ñi ngi koy amale fii ci jumaa ji muy jataay bu am solo bu barkeel ñu amale ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñépp li ko waral nag mooy saa su waxtu yu jotee nga xam ne ponkub lislaam bu am solo boobu nga xam ne sunu boroom digal na ko képp ku ko man nga jooxe ko fii ci Tuubaa nag Euh, groupe assance Voyage Xaadim Rasul bi nga xam ne wuyu na aw turam muy assance bi nga xam ne moom lañ tuddee borom barab bi waxtu wu nekk ñi nga xam ne ñoo war a dem siyaara ji baytullah war a dem makkatal mukarram dañuy ñëw fii ci xaadim rasul euh, siyaare ko ñaan tàgg ko ngir fas yéene dem ci sangam bu tëdd bee muy sallallahu alayhi wa sallam niñ koy waxee saa su nekk min alxaddiimi ila almaqduumi loola kon moo waral jataay bi loolu nag di jataayu mbégte gu rëy rëy rawatina ci borom barab bi ñi nga xam ne ñoo war a dem ca sangam bee nga xam ne dundam gépp ci moom la ko jeexal ci liggéeyal ko ñëw fii ngir jóge fii ngir fas yéene dem siyaara ji ko loolu yaakaar naa lu koy bégloo la loolu nag moo tax ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha saa su jotaay bi accès daaira muxaddamatul xidma dalal leen fii ci jumaa ji tatagal leen ci njiitul sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne sëriñ Afia Bousso imam mi nga xam ne moo jiite liggéey ñëw jiite jataay bi ànd ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi teew ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Boussa Assane di imaam imaami Gédé mu ngi fi teew sëriñ Alhaji Fallou Bousso Ñanga moom it mi ngi fi teew sëriñ Mamadou Lamine Bousso sëriñ Bousso Safoor mi ngi fi teew sëriñ Aliou Badara Bousso sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam Asta sëriñ Abdoul Ahad Bousso mu sëriñ Abdoul Moutalib sëriñ Abdul Xaadir Bousso ak kilifa yi fi nekk yépp ñi nga xam ne ràññew ma leen waaye tamit nag ñu ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne sëriñ Abdul Xaadir Mbakke mu sëriñ Njoogu moom it mi ngi fi ak kilifa yi fi nekk yépp ñu sëriñ Abdourahman Mbakke mu sëriñ Njoogu ak soxna Moomi Mbakke mu sëriñ Njoogu kilifa yi fi nekk yépp ñoom ñëpp it ñi nga xam ne nag ñoo leen di tatagal tey yor liggéey bu rëy bii ci njiital sëriñ alxaaji Moulaye Seck mi nga xam ne mu njiite groupe Assas Xaadim Rasul ak mbool ñim lëkkalool ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi waaye ñu man cee ràññee docteur sëriñ Moustapha Dieng euh, ak ñoom soxna astu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi ñëpp waaye nag xam ngeen ne kilifa gii di Cheikh Mouhamadul muntaxa at mu jot dafay ànd ak asas xaadim rasul liggéey bi waaye moom ci boppam dafay yabal ndaw tey jii mu yabal ndaw di sëriñ Moxtaar Seck mi ne ko boo demee ci fi Afia ne ko na fa doon sama jëmm na ma fa wuutu ñaanalal ma ujaaj yooyu nga xam ne maa bëggoon dox ak sama tànk ngir ñëw ñaanal leen kon sëriñ Moxtaar ñëw na fi teewal fi sëriñ bi waaye sëriñ bi digal ko bu ñëwee ne sëriñ Afia taxawee liggéey boobu ànd ko ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañu tudd kon nag su ko defee kàddu yi nii lañ ko bëgg a tërale incha allah suñu noppee sëriñ bi ñaanal leen ñu dugg ci biir jumaa ji siyaare tàggoo ak sëriñ bi wuti ca barab bu tedd ba muy madinatul munawwara siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ dem ci jàmm ñëwaat jàmm kon danañ jox kàddu gi euh, docteur sëriñ Moustapha Dieng su noppee Euh, ñu jox sëriñ Mokhtar Seck xam naa ne dana wax ci turu sëriñ bi ubbil sëriñ Afia su noppee tamit ñu jox sëriñ Abdou bu Bousso Mokhtar mu wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma waaye sunu bokki ujaaj yi dana am ku jël kàddu ci ñoom euh, incha allah xam naa kon li ñu def mooy dañuy njëkk a jox euh, sëriñ Abdou bu Bousso Mokhtar mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma mu dalal leen tatagal leen suñ noppee ñu jox Euh, sëriñ Moussa Diagne wala jox kenn ci ujaaj ji rek sëñ Abdou Lahad kon bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Abdou laxat ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp euh, teewal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan ñu jot ñu suñuy nuyoo ak suñu ziyaare ci kilifa ku màgg di Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan suñu borom mu xéewale nu bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg te may ko wér ba mot li mboolem ay yéeneem te nu ànd koog moom. di am mbégte lool nag mu rëy ci turu daayira muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya ak kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk daayira bi yépp te teew fii ci dalalaat tey jii yaakaar naa mu juwul mu toll ci juróomeelu yoon wala juróom-benneelu yoon boo xam ne eh, agence de voyage Xaadimu Rasuul mi ngi koy déparé fii ci jumaa ji muy nag loo xam ne niñ ko yàgg di ko waxee rek jàpp nañ lool ne mbégteem sëriñ Tuubaa lay doon mu rëy rëy rëy rëy sax ndax yaakaar naa ku xalaat jamono ya nga xam ne te doon waxe naan wa huwa allati ayqa jismi an siyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru ak jamono yam doon waxe naan yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara al madinata al munawwara yaakaar naa tolluwaay booba ba mu fay toll ak tey jii mbooleem koo xam ne yaa ngi dem ci ascens de waaye Xaadimu Rasuul di déparé fii ci keppaaram tey jii jóge ci moom àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóbbaale xasidaam yu sell yii àgg ne ko sa jëwriñ ju tedd ja nuyu na la mu fay ko am nuyoo yaakaar naa ne lu gën a sedd xolam loolu yombu la am kon nag maa ngi ndokkeel xujaaj yi nga xam ne sunu borom taw féexee na leen taw féexee na leen ñu déparé ci barab bu tedd bii ndax am nañu lu jafe-jafe-jafe waaye am nañu lu rëy te mooy àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jottali ko nuyoob Serigne Touba te fekk bi nga fiy jóge ci Serigne Touba nga mujj a mujj a giseel loolu yaakaar naa lu am solo la kon nag ñu ngi Serigne Moulay mi nga xam ne ci moom la yàlla jaarale loolu ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi yëpp ñoo ngi leen di sant bu baax ci tuuru daairatu muxaddamatul xidma ci xalaat bu rafet bii nga xam ne am nañ ko ci ñëw di jóge fii bu ñu jógee foofa it dellu siwaat ne Serigne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nuyu na la te muy ñoo xam ne ñoom bañ jógee foofa dugaat ci réew mi sëriñ bi lañ njëkk a gisee kon loolu nekk na lu rëy nekk na lu sedd xol waaye faya fegal na ko itam loolu nga xam ne mu ngi ko doon tawat ci ak nekkam ci ñàkk woon a dem ca barab boobee dama jàpp ne ginnaaw bi lu baree baree baree baree baree bare demal nañ ko fa kon nag sëriñ Moulay yow ak xojaaj yi nga àndal ñoo ngi leen di ñaan kàddu goo xam ne kilifa gu mag waxoon na ma ko wax ne muy mën naa ko wax sax sëriñ Thierno Bousso sunu wayjur moo ma ko waxoon jamono ya dem wax ne sëriñ Abdul Ahad moo ko ko waxoon daf ko waxoon ne ko booy dem lu fasal yéene lépp loo fay def nga def ko addi sëriñ Touba su ko defee suñ suñ borom dana ko nangu te su ko sëriñ Touba bu ko bu ko ko nangulee yow dana nangul ci biir nangu googee kon it yéen ñu ngi leen di dénk li ngeen di def nii ngeen fas ci liggéeyalu ko Serigne Touba su boobaa da ngeen ci am lu kawe seen jot ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan nii ñu fi teewe jii di ñaanante ngir dem foofee ca Baytul Haram ñu daja waat fi di leen teeru kenn bañ a manqué suñu borom defal leen xajjan mabruuran wa sa'yan mashkuuran wa zanban maxfuuran assalaamu aleykum wa rahmatullahi man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ngi nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi di leen nuyu ci turu alxaaji Moulay Seck mi nga xam ne moom moo jiite Xaadim Rasul voyage ñuy wax ci kàddoom muy nag lu xaw a diis lool ndax xam nañ yéeneem fi mu toll ci liggéey bi ba tax na lu ñu wax lum rafet rafet rek dana am lu des ndax dañoo xam yéene jim am ci liggéey bi nga xam ne mooy aj màgg xaaji eh, mulaay ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi saaxibul fadila a cheikh mouhamadul muntaqa xafidahu llahu wa raahu nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi cheikh mouhamadinil muntaqa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu gën koo dëgëral tëbb ko kàttan ba mu àggale naal yi nga xam ne moom la naanal lislaam ji naalal ko maamam ju tedd ja cheikhul xadim nafaana allahu barakaati niki noonu lay teg ci nuyoo bi ak ziyaar bi ci loxol al imam sirin aafiya buso moom mi nekk ci jataay bi ak mboolee mbokk yi nga xam ne ñoom la fi nekkal xëy na kilifa yi fi nekk takku na te ku lim doo matan waaye buñ jëlee nuyoo bi ak si bi teg ko ci loxol Sëriñ Aafiya dina ko jottali ci mbokk yëpp niki noonu tamit alxaaji Mulaay mi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñooy waa ira muqaddamatul xidma ci taxawaay yu sell taxawaay yu rafet yéene yu rafet yuñ am ci ànd ak moom liggéey bi ndax heure bu sumbee liggéey bi rek fu mu gis leen taxawaay yi firnde la ci ndax niñ koy waxee rek assance euh, bi moom dafa wuy ji tur wi ndax heure bu sumb liggéey bi jubsee dina dem ci kilifa gi sàkku ci moom ñaan jël ci moom digal bëgg a soobu ci liggéey bi su liggéey bi matee tamit su ñëwee balay def dara dana dellu ci sëriñ bi sàkku ci moom ñaan kon loola firnde firnde la ne xaadim rasool moomeelu yoon gi la moomeelu jullit ñëpp la waaye rawatina yoon bi ndax ni ko sëriñ Abdul Ahad waxee rek muy lu am solo ndax mbégte la nga bokk ci yoon bi bokk ci njabootu sëriñ Touba. di déparé fii di dem di ziyaare ji sangam bi muy loo xam ne lu mébétoon la waaye tey borom bi tabaaraka wa taala fay na ko mébétam moom mébétam moomu feddaliku na ndax lii di am di borom bi tabaaraka wa taala jaarale ci liggéey boobu ci loxob mu mulaay loola ñaanuk sëriñ bi gu feddaliku la ba na kon xaadim rasool moom moomeeluk jullit ñépp la waaye rawatina moomeeluk murid yi ak yoon wi muy lu sedd xol loo xam ne képp koo xam ne dangay ngay bokk ci yoon wi wala nga bokk ci njabootuk sëriñ bi war naa sedd sa xol lool te loola jataay yi fiy am ak départ yi fi am firnde la ci ndax buñ xoolee ci kilifa yi fi nekk yëpp ñu mas dem ci Xaadimu Rasuul lañ waaye cofeel buñ am ak solidarité buñ am ci assance bi moo tax lu Xaadimu Rasuul woote danañ teew moo xam mu woote conférence yi muy faral di def ngir wàccaay yi danañ gis ne kilifa yëpp danañ ci teew ngir bàyyi xel bu ñu bàyyi xel assance bi ndax bu ñu xoolee ñu toog ci jataay bi yëpp koo ci gis ku ci mas a dem la ci assance bi waaye ak cofeel ak yére jum am ci liggéey bi moo tax bu Xaadim Rasuul wooyee wootee danañ bàyyi seen itte yëpp kon Alaaji Mulaay ci turam mi ngi sant ñëpp ñi fi teew rawatina kilifa yi di sant tamit ñi nga xam ne ñooy ak njabootu boppam njabootu boppam gi mooy ñi koy jàppale ci liggéey bi ku ci mel ne Xaaji euh, Malick njaay moom ku ci ku ci ku ci ne xam ne ay taxawaayam ci wàll ji féete Ndakaaru ku ci mel ne Xaaji euh, As euh, Adja Asutaal moom it ku ci ne xam na ay ay taxawaayam yu ràññi ku ci mel ne al imaam Abdul Xaadir Seck jiili moom it ku ci ne xam na ay taxawaayam yu ràññiku euh, ku ci mel ne Adja Bousso Amar ku ci ne xam na ay taxawaayam yu ràññiku kon alaaji mi ngi jotal ak cantam ci njabootu boppam euh, ñi nga xam ne ñooy ànd moom liggéey niki noonu tamit ni sante ñi nga xam ne dañoo am cofeel ci xaadim resol muy ku ci mel ne al imaam euh, Muxtaar Sekk moom it lu xaadim rasool nekk rek ma ca kon moom it alaaji mulaay mi ngi koy beral ak cantam niki noonu ni lañuy ñuy sante imaam yi nga xam ne ñooy ànd ak xaadim rasul ci liggéey ku ci mel ne al imaam abdul qadir mbàkke jumaada moom it ku ci am yéene la ku ci am pësteef ku ci mel ne al imaam mbàkke silla moom it ku ci am yéene la ku ci am pësteef ñoom ñëpp daal niñ ciy doxe ci liggéey bi mooy tur wi ak lim nekk moomeelu yoon wi moo tax ñoom ku ci demee sa yéene nga ciy demee doo ci am sago ci liñ ciy liggéey niki noonu ni lañ sante ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa taala dogal ci ñoom ñu war a joxe seeni ponk ci at mii muy ñiñ dajale fii di leen sant bu baax di leen dénkaat ab yobbal mooy waaye loolu sax duñ ko ragal ci ñoom ndax ku jóge ci barab bi li ñuy yaakaar ci yow ak li ngay làmboo rek mooy li waa barab bi làmboo te mooy ay teggin teggin yi nga xam ne warma ji nga xam ne moom lañ jox dëkk bii ngelawaay nañ takkoog warma jooju ba buñ demee fee sang ba tëdd warma jooja continuer ndax sëriñ bi moom am ku ne xam na fi mu tegoon sang bi sallallahu alayhi wa sallam loola lu fees la ci am mbindam ba tax képp koo xam ne ci ak njabootam nga bokk dem di siyaare ji sangam bee war naa am teggin yoo xam ne moom ngay làmboo waaye loolu nag amuñ ci ragal ndax lii yoon wu njëkk ñu leen di jële ci barab bu tedd bii di leen yóbbu waaye mosuñoo gis benn safaan boo xam ne day bàyyi ko ci kenn koo xam ne da nga ne ci xaadim rasool nga ñëw moom daal boo duggee ci biir assance bi war ma ngay jox assance bi ndax tur wi loo bëgg a def lu safaanu sax da ko xalaat ndax war ma ji ngay jox assance bi kon ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di jàllale benn message boo xam ne alaaji dañ nawoon nañ nañ ko jàllale mu ñeel mboolem jullit ñëpp ak mbokki taalibe yi muy loo xam ne alaaji mulaay da ciy feeñal yéeréem mooy lum teg loo xam ne lu bees la muy woyafal woyafal nag suñ ko waxee mooy xëy na dem màkka laaj na jumtukaay ci wàllu poos wallam koom ba tax na moom yéene jum am ngir liggéeyal sëñ bi ci fànn googu ci biir dëkk bi tax na mu ne dana teg programme boo xam ne woyafal lay doon ba nga xam ne ku am sa tuut soo ko yóbboo ci agence bi ñu tijjil la fa compte boo xam ne loo fa dajale yaako moom bis bu demee ba mat ñu at mooma waa agence bi jàppale la yóbbu la ci màkka loola lépp ndax comme niñ ko niñ ko xamee rek alaaji mulaay moom amul dallu su aj gi suñ génnee ci aj gi rek day commencé waat di xalaat lépp loo xam ne ab xalaat la buy jàppandal jullit ñi wala buy jàppandal yoon wi ngir ñu mën a joxe seeni farata ngir ñu mën a mottali yéenay sëriñ bi loola da cay dox kon programme boobu képp koo xam ne bëgg nga cee am lu la leer mën nga jaar ci agence bi boo fa jaaree danañ la dalal xamal la programme boobu ni muy tëddee mooy loo am rek loo ca def ñu dencal la su matee ñu yóbbu la ca at mooma ñuy jégalu bu baax rek waaye alaaji mulaay lim ñu jot li woon ci ay kàddu ëpp na lii waaye xëy na suñu matadi moo tax kàddu yi jubul nam war a jube lu ci dëng rek ci mbirum doomu aadama la lu ci jub ci kàttanu borom bi tabaaraka wa taala la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi delluwaat di santaat yàlla suñu borom bu baax ci tawfiq gi ñu defalaat bañ teewee jataayu lislaam bi di jégalu ci kàddu yi xam naa kàddu yi ndigal la waaye toogal sunu sëriñ bu ko defee ñu sañoon ñu yëkkat suñu kàddu dañuy rek diglu ñu ngi baax si affaire bu sa di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal sunu borom mu eh, dool ko fee yàggal lool te ànd ak wér mboolem naan yi mu naan lislaam sunu borom mottali lépp dañ fekk lépp ci bàkki Cheikh Ahmadul Xadim di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom laa fekk ci jataay bi di leen siyaare bu baax baax baax di rafet bu baax kàddu si Moustapha Dieng ci kàddu yu am solo yi moom it di siyaare bu baax sëñ Moulay Seck mi nga xam ne mooy jëriñu liggéey bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal eh, di sant bu baax ni ko suñu saa waxee eh, ku am yéene la ci eh, liggéey bi leen ciy toggoo ci ay coona eh, daanaka ku jëw-jëwut ak moom sax mënoo kaa xam kon ñu koy ñaanal yàlla moom it fa mu bëgg liggéey bi àgg fi yàlla ko suñu borom àggale te lépp suñu borom gërëm ko barke Cheikh Amadou Khadim tur yi ni ko waxee bu ne nee Xaadimu Rasuul wayaas tur yi rek daa am lu muy tegtale am solo lool ci ku xam rawatina barab bi ñu nekk ak ki fi nekk ko xam xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ duri buñ tuddee dara jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomale ko ko loola ña ko def xam naa ne am nañ tawfiq ndax moom xam naa ne turu ko daqaloo jàpp naa ne amul kon nag ñu ngi ñaan daal tur bi yàlla wuy boroom di ñaanal suñu mbokki ujaaj yi yàlla leen yàlla suñu boroom yóbbu ci jàmm ngeen àgg ci jàmm mboolem jaamu yàlla yi fay def yàlla ko yàlla nangu te gërëm ko yàlla defal ñu it ngeen ni bisuwaat ci jàmm fekk ñu ci jàmm ak mbooleem jullit yi nga xam ne ñoom yi ñooy dajee foofa yàlla sàmm leen bañ mottali seen i jaamu yàlla ba mën a delluwaat seenu njaboot ci jàmm te fekk leen ci jàmm yàlla na ko yàlla def ci barke si Ahmadul Xadim xam naa jataay bi daanaka kaddu yi ah kaddu yi soññee rek la ak leeral jàpp naa yi li ëppoon solo si Moustapha Dieng tudd na ko dama xaw a yéexe ñoo maa ngi jégg lu baax waaye ñu xam ne li ñu fiy dajale ak jaamu yàlla la li ñu fi dajale ak jaamu yàlla la jaamu yàlla nag xam nañ ne du lu nos la neex nga koy defe waaye daa am nuñ koy defee noo xam ne noonu nañ ko jàngalee nañ ko jàngalee rek may faral di wax ne lépp lu mën a doon laytaaje mooy kay jox solo moo koy jox ñàkk solo muy yéene ji rawatina suñu bokk ujaaj yi ñu xam ne jaamu yàlla gi ñu def moom daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a metti gën a metti ah kuy def lu metti nag te yàlla tax nga di ko def loola metti doo dootoo ko yëg boo xamee la ngay def defi rawatina nag soo bokkee ca ña yàlla ña tànn aj màkka xam ngeen ne aj màkka ku dib jullit rek bëggu ko waaye suñu borom nag mooy am ñoo xam ne moo leen tànn ci biir jaamam yi defal leen jumtukaay yu tax yu dajee bay tax ñu mën a dem aj màkk na yéen ñi bëgg a dem ren ñaata ngeen xam seen i bokk ñoo xam ne ëpp leen leen yéene gënu leen kaa bëgg gënu leen gënu leen kaa bëgg waaye ci mbaaxu yàlla rek ci la leen yàlla tànn ci biir ña ngeen bokk dafa leen taw tawféex ba ngeen mën a dem joxe seeni i farat loolu nag ku koy ku koy xalaat bàyyi ko xel lépp loo mën a dajeel ci ay coona da ngaa war a sant rek te xam ne yàlla suñu borom defal na la xéewal goo xam ne tent rek ca war kon loola maa ngi koy dénk sama bokki ujaaj yi incha allah ñu ne yéen ñooy ànd waaye na xam ne lii ñuy def defi moom dana baax lool yéene ju sell ak muñ muñ bu ñu cee ñàkk ndax fu ñépp di dajee te bokk benn jubluwaay goo bokk gën a bëgg bu fa dajee su ak yaatoonte dënn amut muñ amut man naa indi leneen te xam ngeen ne aj màkk suñu borom mi ko digle moo wax ne bëgg naa ko koy def kat yii moom na ko moytu alxajju ashhurun maalumaat fa man farada fihin alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj yooyu gis nga ne sunu borom bi mu digalee aj dafa ne yii moom na ko ci moytu yooyu mu moytu loo nag jàpp naa ni ku munta muñ man ngaa bañ a man a sàmmonteeg yooyee muy lépp loo xam daa aju ci wàllu bànneex buy bàyyi ko ci diggante góor ak jigéen naka noonu it lépp loo xam ne xeeti jikko yu yàlla gërëmul la naka noonu it lépp lu jëm ci wàllu dagg sante waxante nga xam ne ko ndeke yow booy aj màkka ni ngay góor góorloo fenn fone la nga fa war a def nga def ko noonu nga war a góorgóorle sàmm say cër sàmm saw làmmiñ bul tudd loo wóotu tudd sàmm sa pas-pas ba li la tax a jóg bu ci leneen rax loola nañ ko bàyyi xel bu baax xam ne daal moom fukki waxtu képp nga toog ci benn barab rek daa métti maanaam fukki waxtu te xam ngeen ne avion da ngeen ci am fukki waxtu yoo xam ne fa ngeen toog ngeen di toog loolu rek ab coono la te leen loolu mooy bunt bi <laughs> loolu mooy bunt bi kon da ngeen xam ne daal li ñu bëgg a def bi lu baax la lool lu tedd la lool waaye lu làmboo ki coono la waaye nag li ma wax noonu coono yi moom ngir nga mën kaa yëg xoolal rek xéewal gi boo xoolee xew ji cant rek lay war leneen du la war kon loola ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax baax di wax ne wax dëgg yàlla asas mii man bii mooy sama ñetteelu yoon ma ne ci eh, ndeysaan 2000 2014 ja 2013 maag Cheikh Sëñ Fallou Mbacke Jumaada yàlla na ko yàlla dolli yërmaande ak njëggal fa mu tëdd ñoo àndoon ci bii lañ demoon waaye yàlla xam na ne taxawaayaak yittewoo gaak daa mel noonu nañu bañ demee Mbàkke daal sunu Tuubaa la ñoroon sunu Tuubaa foofa ngir na mu xéewale woon ci ay taxawaay daaw naka noonu ba tax na kon alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa ne ren sax mën naa gën mën naa gën a xéewal te loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla ci defal te mooy kenn ku ne boo demee la nga doon yi yaakaar ndax li jëpp solo moom dem dama naan aj gi neex na mooy da naan def naa sama farata yëpp yow ma waroon def ndax gën a neex di la jox lekk yi gën a neex te say jaamu yàlla na war a mati matu ko daanaka amul njëriñ ndax jaamu yàlla mooy ñu tax a jóg maanaam ku jógoon ngir wuti fu neex moom mën naa am kon jombul sax am na fu gën a ligis màkk am na fu gën a ligis màkk waaye da nga xam ne ñun ligis yi taxu ñoo jóg jaamu yàlla ñu tax a jóg su ko fee yow looy jàmbat mooy ah man ka sama farata bi defaguma ko waaye sama sunna si waaye lii ma waroon def defaguma ko loola saa bu matee jàppal ne yow sax aj na la ja des mooy yàlla nangu ñaan yàlla nangul ñu ñëpp ñu ngi jéggalu ci kàddu yi xam naa su dee am na lu des jomul bokk yi ñëwaat daañu ko mottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa la ah, ñu ñu ñu koy ñu koy joxe ñoom suñu mbokk jullit ñu war a jóg dem mottali seen farata jooju ñaam suñu borom mottali lépp ci jàmm barke borom Tuubaa ñu nuyu nag kilifa gi nga xam ne moo yor liggéey bi alxaaji Moulay Seck ak mboolem njabootam gi mu àndal ñëpp staff bi ñoom ñëpp. ñu ngi leen nuyu di leen sant bu baax a baax ci turu bokk ojaaj yi mas a jaar ci assance bi ñëpp nag ak turu bokk yi nga xam ne ñoo war a dem tey jii mën naa ko waxee moom bu dee kàddu yi seere nag li sàkku ci ñun ñu koy seere gi jëm yàlla rek mooy de assance bii moom hmm, xanaa koo ko xamagul waaye koo ko xam daal ba mos li ci ne doo ko yemale ak dara ndax wax dëgg yàlla mooy loo xam ne da nga ciy yëg sa bopp loo xam ne foo daj foo geesoo danga gis koo xam koo xamoon bu njëkk foo geesoo daa gis sa mbokkum bopp ci biir te jëmmi kii ko yor tam boolewu leen ak ay jàmbur wala wala wala ñaneen waaye jëmmi boppam ji wala soxnaam sax Adja Astu ak njabootam bi ne ci biir ñooy demal seen bopp yoral liggéey bi seen bopp loolu nag du ñëpp koy defee noonu loolu yitte dëgg la alaaji malaay ko ko xam da nga xam ne liggéey bii ak jàmm yàlla la ko def liggéey Sëñ Tuubaa la ko def taxawatam ak bokk ci ay bokk jullitam la la ko def ndax lépp luy ay ay ay coono yoo xam ne ah, mbir mi laaj na ko ba ñu ci dara moo ngi ñi àndal ñëpp nag da ciy ba da yoo xam ne sax mbaax boppam la ak yaatal boppam ah, ne yeneen yi ñeneen ñi du ci àgg loolu ñu ngi koy seere ngir yàlla yàlla état bi ñu def yëpp fenn foo ko ci daan dégg sax naan foofu dana xaw a métti xaw a mel nangam te boo da nga koy dong ba jàll ko doo yëg benn mettit ndax taxawaay yi yi nga xam ne da nga ne lii moom taxawaay la waaye bu duwoon loola da nga yëg da nga yëg da nga yëg métit ay ay ay jaaxle waaye doo jaaxle dara ci wàllu encadrement ci wàllu diine ci wàllu toppatoo bi lii doomu aadama soxla yooyu yëpp dana fekk mu jiitu ca def ci lañ ci war a def lépp lépp te ren jii jàpp naa ne mooy gën a amati solo ni ko sëñ bi waxee léegi ndax voyage yi war a def dem ci barab ba dem fa demati fa toppatoo la mu war a toppatoo lépp loolu lépp def na ko fii itam ci réew mi ñi ko joojoo xam ngeen ne dara de sut taxawee nañ lépp luy war a taxawee luy tax seenu dem mën a jàppandi seen dikk tam mën a jàppandi loolu nag naka jeex mooy aada ji nga xam ne moom lay doxee bokkut ak ñi nga xam ne dañuy laaj xale xale si jàmbur ba noppi di di na neen na neen képp ku mas a jaar moom daal soxal seet na ci lim seq a yow ndax dana ko matal ba mat sëkk say farata ak yi la tax lépp dara du ci manqué amul fenn fu ñuy woyefal fu fu xam ne ko war dem ca duñ dafa yóbbu amul lenn lu ñu la war a xam te dooñu la ko xamal am benn taxawaay bu war ci yow ca duñ ko def muy guddi muy bëccëg moom boole ñu àndal ñëpp loolu ñu ngi koy seere ngir yàlla bëgg rek ngeen gën a seen xel yéen ñi nga xam ne yéen war a dem ren xam ne ki ngeen àndal daal jiwriñ la ju ko ma a sëkk ca tam tawfiix jii mu def nga xam ne si Tuubaa lañuy bàyyi ko dem ci sang bu prend boobee de si waat fii ci Sëriñ loolu yi dafa naa xaas la joo xam ne yéen a ko am te leen fekku loolu rek doy doy doy na lépp li mu doon jiw ji léegi nag di woyofal googu mu tudd bëggoon naa ñëpp xam njariñ li ci nekk ndax loolu defe naa lu bees la ren waaye njariñu rëy rëy nga ci ci ko xam ndax ñeneen yi ay tubaab ak ñeneen kat loolu seenu doxin la bokk bu ñuy liggéey weer bu ne am na lu ñuy denc ngir bu at ma jeexee ñu dem faneen fu bokkut a fuñ dëkk ngir mu noppal seen bopp wala noos wala lu ni mel wala da seen yëf daal kii nag bu ko indi ci cadre l'islam nga xam ne tey ku am sa juróom fukki junni wala sa téeméeri junni wala loo am baña xeeb dara man koo dénkaane ndànk du la yàqal dara man ngaa dem ba am ci lu ëpp bee sax wala lu jege bee loo xam ne bu waxtu jotee da ngay mottali rek mu def ci yow tooy doo ko yëg loolu mbir la moo xam ne mat naa xam te mën naa yaatal ba képp ku ci war a jot jot ci muy ku dem ak ñii di dem tey ak ku mës a a dem loolu daal lu ñu war a xool la fexe ba ñëpp jariñu ci ndax demu màgg jekk-jekk ak yenn millions yi yombul ñëpp waaye noonu ma ko defee nga xam ne loo am rek duduwat yi ñu dencal la loolu doxee na woo xam ne bu ñu ko xamoon ñun ñëpp dana yombal lu bari te bu ci àggee da nga xam ne bokkut ak jékki-jékki génne loolu kon ñaan ñaan yàlla def ci tawfeex def ci barke ba nit ñi xam ko te jariñoo ko ndax lan jëm lépp weesul rek yombal yombalal nit ñi seenu dem lii ñëpp mën cee murlu ñëpp mën cee jot loolu mooy mooy yéeneem ah, noo ngi sant nag mboolem bokk yi nga xam ne doyloo nañ jëmmam ji doyloo liggéeyam bi ndax tam jamono jii ñu ne doyloo di lu yàpp lu jafe la rawat na mbirum àlla dox seen diggante kon ñu ngi leen sant bu baax yéen ñi xam ne yéen a ko doyloo ba jaarale seen lépp ci ci ci moom ah ca ah, ca gis fi ñeneen ñeneen yu bari waaye nga bàyyi ñëpp féetewoo ak moom loolee ñu ci jaar ba jàll xam nañ ne ku ko def itam def nga la nga war a def ndax foofa moom taxawaay yam laaj la moom rek laa gis koo xam ne na koy defee wutin ak ñeneen yi moo ko équipe bi àndal ñoom tam duñ duñ sonn duñ tàyyi lu mu guddi guddi guddi lu situation métti métti boo leen woo boo leen geesoo gis leen loo su loo laaj tam ñu taxaw la ca ak lu mën a te lool sax mën na ca bañ am benn taxawaay bañ coono mën ca bañ am waaye dañ koy waxee noonu ñoom seen taxawaay moom wax dëgg yàlla du ci du ca dëkkuwaay ya du ca ñam ya du ca siyaar yi nga war a def du ca lépp lu war a def ci farata yi war a def yëpp da cee taxaw taxawaay yoo xam ne ma sëkkalee moom ñu koy seete ngir yàlla te kilifa yii fi ne ci barab jotaay bi tam am na ñoo xam ne xam nañ li may wax bu baax kon nag ñoo ngi gàttal suñu kàddu foofu rek bëgg ñëpp dalal seen xel ñaan suñu borom na ci barkeb Seexul Xadiim bi ñu ne ci wetam suñu borom defal leen tawfiix te defal ñu ko yóbbu ñëpp ci jàmm ñu dem ca dir si ci jàmm ca jàmm yàlla ya ak ñaan ya ak lépp lu ñu fa bëgg ñaan ko fa suñu borom yàlla nangu ko te jotal ñu ci te jotal ci jullit ñëpp fu ñu mën a nekk te assance bii suñu borom doole ci barke mu gën a yàgg lool te gën a sax te gën a barkeel ah, ba doon assance wu yoon wi jokkoon nag moom sama yéene mooy mu doon assance wu yoon bi ñëpp xam ko di fi jaarale seen lépp li ndax ndax tur wi wu yoonu ko assance Seexul Xadim ñu ko tuddi assance Xadim Rasul kon loolu képp a ne te xam ne mooy mooy sa mooy sa agence bopp yàlla si borom doole ci barke doole ci toofeex doole ci sutura barke bi sallallahu si Ahmadul Xadim aleykum salaam wa rahmatullahi ci atum muy aju màkk gi nga xam ni euh, moom lañu war a dem defi ko te muy ponk ci ponki lislaam yi di jiital ci nuyoo yi kilifa jotaay bi muy sëriñ Afiyatou Bousso Muxtaar ci ndigalul a cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides ñu ñëw fi ànd ak sëriñ Afiya jataay bu am solo bii nga xam ni en sens bii di Xaadimu Rasuul voyage ñoom ñoo ko nos fii ci biir jumaay ji ngir ujaaj yi nga xam ni jaare nanu ci ñoom di dem di def seen ponk lislaam bii alaaji mulaay gaaw bi nu weesu ci la ñëwaatoon ci sëriñ bi doon ko yëgal wàccaay wi ak bis bi ñu nekk tey sëriñ bi am ci mbégte lool soññ ko lool won ko ni ko liggéey bi nga nekk neex na ma te bi nga def saf na ma lool ànd gi sëriñ bi ànd ci liggéey bi ak sedd gi mu sedd xolam loolu rek tawféex la joo xam ni jar naa taxawal ak liggéey waaye rawatina loo xam nag ni dafa jëm ci ponk lislaam ci dibéer ci guddi ci la sëriñ bi woote di laajaat bis bi ak di joxe ndigal ci sëriñ Afia mii mu taxawe ko taxawe fi jëmmam wax ni nanuñu feggoo ci ak moom di wane ni sëriñ Afia euh, moo ko fi teewal euh, ànd ak alaaji Mulaay ci jotaay bu am solo bi waaye yóbbal bi nga xam ni moom la kujaa ji war a xam ci lu ñuy dem mu bàyyikoo ko ci sëriñ bi sëriñ Afia jottali leen ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sàng nag ci ginnaaw tàkkusaan tuuti yàlla dafa def ma toog ak moom ci mu doon ñaanal ñi nga xam ni ñoom lay yóbbu ren waaye la ëpp solo ca la mu wax rek mooy di ñaan ñiy dem ñu sellal seen yéene te jëf fa jëf ji ci jëfin wi nga xam ni noonu la ko lislaam bëgge kon xam naa sëriñ Afia euh, mi nga xam ne moom mooy wax ci kàddu sëriñ bi rek kon ñun ñëpp nag ñu ànd teewlu ko te xam ni moom la sëriñ bi euh, moom la sëriñ bi jox ndigal li ci mu ñaanal leen te tàggatoo ak yéen ci turam moom sëriñ Muntaxa Mbàkke wa ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi ajmaiin duyuufa rahmaan xujjaaj baytillaahil xaraam yéen ñi nga xam ne yéen am patas bàyyi ko fii ci xadiimi rasuul dem ju soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam ci Madina Munawwara war a faa jóge jàll ca néegu yàlla bu sell ba ngir joxe seen ponk juróomeel muy faratay xaj ñi ngi am mbégte bu baax ci gunge leen ci turu cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu llah wa raa wa ayadahu wa nasara moo nu jox ndigal nu ñëw teewal ko fi gunge ànd ak waa daayira bi ak sëriñ Mouhamadou Moustapha mu sëriñ Mamour Fadilu fekk moom bi mu ko yëg da ko fekk Ndakaaroo ci bëccëg da ko yëg mu wax ne kon nu wóotu ko fi fekk ndigal li moom doon ko sëñ bi boole woon ne nu ànd ñëw fii pour teewal ko fi kon ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di leen wax ne yéen a ngi jëm ci jaam yàlla gu am solo yéen a ngi jëm ci barab sel sell yéen a ngi jëm ci barabu ñaanukaay muy fépp foofu rek ñaanukaay la tàmbalee ca Madinatul Munawwara ba ca Makkatul Mukarram ba ca Muna ba ca Arafat ba ca Muzdalifa ba ca Jamra fépp barabu ñaan waaye ñi ngi ñaan bu ngeen demee ba àgg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa ngeen jotal ko nuyoo cheikh Mouhamadou Mountakha ak nuyoo murid yëpp ku am xasida saabal jannati nga dàng ko jot ko nuyoo cheikh Xadim te ñaanal fa nag cheikh ko kattan yokk aw fanam ba li mu fi mu àggalee fi mu yéenee àggale yoon wi mu àggale ko fu ko te lépp nu ànd koog moom te bu ñu fàttee ñaanal tam réew mi jàmm réew mi am jàmm réew mi am naataanga réew mi am xéewal bokk ak réew jullit yëpp ñi nga xam ne ñoom la réew mi suñu borom teg réew mi seen loxo ñuy njëglaay réew mi jéem di seen rek njëglaay ñu ngi ñaan bu ngeen demee ngeen bañ koo fàtte ndax foofa barabu ñaanukaay di wax ni de Makka nag xéewlu bu rëy la ndax ku ne xam ne ni de Makka alal moo koy def kattan moo koy def wér moo koy def kon nag ku suñu borom xéewale ba daje ci yow loolu nga war a dem nga la waaye boo demee nag jox sa borom njukkal te mooy yóbbulu te gën ji yóbbul mooy ragal yàlla te sa wóoru fay ne xayra zaadi taqwa xam ne yóbbu yokk aw tur leen waaye dangeen def seen warteef te mooy seen ponk juróomi ci islaam ngeen dem def ko ak fulla ak fayda ak ragal te def ko yàlla rek tax ndax bari na luy dugg ci jëfi doomu aadama loo xam ne bokk waaye ajit mett ne mett koo xam ne ki koy def war naa am fayda def ko te yàlla rek tax demuñu fa kon ngir caaxaan dañ faa dem ngir joxe farata ñëpp bàyyi ko xel ni ko Abdou Khadir waxee léegi bu ñu demee lépp loo xam ne liggéey ba togg na leen ko ngeen jéem koo jëfee nam leen ware te yar bi bi nga xam ne moom leen Seexul Xadim yar ñépp ràññee leen ko ngeen gën di ko dolli ndax ku ne xamee na murid yi ni ñu xeere ci yoon bi sallallahu ak ni ñu yaroo loola dañ leen koy fàttali waaye xam ne ci ngeen nekk waaye ñu leen koy fàttali bu baax mu yar bi ak teggin bi ngeen ko doole ca barab boobu foofee nga xam ne fa la soppeeku xadim rasul nekk fa la yaakaari Cheikh Xadim nekk fa la lépp Sëriñ Tuubaa nekk te xam ne lépp lu fa def rek Cheikh Xadim nga ko defal kon lépp lu waay am ci orma ak pas-pas boo demee danga ko dolli loolu rek mooy kàdd bi kon ñu ngi sant ñëpp. di leen ñaanal ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm leen tax a lépp ngeen am ko ni ngeen ko bëggee dikk fekk seen njaboot ci jàmm ci barke Borom Tuubaa nuy ñaanal nag alxaaji Mulaay ak mbooloo mi mu àndal te di ko sant bu baax ci xalaat bi mu mel ni kon xalaat bi bañ tàmbalee dem Makka yàgg na waaye dafa mel ni xalaat bi moom la ko suñu doon toofeexal moom la fi doon xaar mu koy defee defee ngu sell wii min Tuubaa ilaa wax dëgg yàlla moom moo ko jëmal kon ñi ngi koy ñaanal ndam lu mës a am ci aj rek yàlla ko su ma defal ci ak gi gu ko ëpp tawféex yu ñu mës a am rek moom ñu mu àndal yàlla ko suñu suñu defal kon ñu ngi nuyu ñëpp di saare ñëpp di yóbbante ñëpp am nuyoo ci yonent bi sallallahu alayhi ñu bañ a fàtte ñaanal sëriñ bi ñaanal njaboot gi ñaanal réew mi ñaanal feex ci réew jullit yëpp asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu. seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ajaratu maam bu su amaa nekk agent ci agence Khadim Rassoul voyage nga xam ne regroupement la. yéen ngi préparé pour ba ko baaxoo di amalee at mu jot regroupement Khadim Rassoul voyage comme niñ ko xamee baaxoo na ko di defee départam fii ci jumaa ji. ñuy bàyyikoo ci suñu sang bu tedd bi wutali sangam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam booleeg nag at bu jot ak nombre bi ñuy am ren macha allah saa bu nekk waa dëkk bi waa réew mi dañu gën a jox confiance ñu koy sante suñu borom subhanahu wa bu baax. nombre ujaat yi waaw ren nag moom ñu ngi am effectif bu 330 pèlerins moom la ñu war a convoyer vers Médine incha allah benn départ bu nekk fii à Touba. beneen parti bi ci des nekk à Dakar. condition yi ujaaj yi nekk. waaw sant yàlla loolu nag moom dañuy wax ne ujaaj bi en personne sax moom moo mën a témoigner si loolu mais nag li nga xamante ne si warloo nañ ko ak ujaaj bi ñu ngi siy jéem suñu kéemtalaay kàttan di ñaan suñu borom bi gën ñu cee jàppale bu baax a baax. semaine bi passée Air Sénégal amoon ay jafe-jafe ci ay retard ci ay euh, perturbation loolu si yéen a ngi koy bàyyi xel ak seen ujaaj. waaw loolu moom côté aviation la côté transporteur bi la. regroupement bi li muy gérer mooy li nga xamante ne si moom la warloo ak pèlerin bi mais li nga xamante ne si mooy transporteur bi loolu ay conditions la ay modalités la ay règlement la mais nag ñun heureusement que je ne dis pas heureusement sax Flynas mooy convoyé suñu ay pèlerins peut-être que tamit euh, la compagnie Air Sénégal comme suñu ki dafay soog a débuté xëy na loolu moo ko waral mais tamit doonul ay jafe-jafe yoo xam ne luy continuer la. Très rapidement, Quelle est la procédure et le nombre aussi de pèlerins qui quittent Touba aujourd'hui Comme à l'accoutumée, l'agence Radio Brassoul Voyage a l'habitude de faire ses départs au niveau de la grande mosquée de Touba, au niveau de notre saint Cheikhoul Khadim, vers son saint Mohammed sallallahu alayhi wa Un départ prévu pour aujourd'hui, la nuit du au juin, avec un effectif de 330 pèlerins à bord. les conditions, elles sont toutes réunies Toutes les conditions sont réunies. Même les pèlerins peuvent le témoigner à eux-mêmes. Tout récemment, il y a eu des perturbations avec Air euh, Sénégal. Et vous, vous êtes euh, pessimiste par rapport à ça qui gère, le transporteur. Nous, le regroupement, l'agence, notre devoir, j'espère qu'on a accompli notre mission. Euh, notre objectif, c'était de programmer tous les nécessaires pour que le pèlerin puisse effectuer son hajj vers euh, Médine et j'espère qu'on a tout accompli, Inch'Allah. Merci de nous rappeler le nom. de l'agence Khadim Rassoul Voyage. Merci. Okay, merci.